إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمده سبحانه على فضله وإحسانه أسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فقامت به الحجة وتمت به النعمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد bokk ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy dimbandikoo ñu ngi koy jéggul suñuy bàkkaar di ko ñaan mu musal suñu ayu bakkan ak suñu jëf yu ñaaw di nangu ne képp ku yàlla gindi kenn mënu koy sànq waaye képp ku yàlla seetaan ci mandu ba mu sànq kenn mënu koy gindi yàlla ñu yàlla boole ci ñu mu gindi musal ñuy bokk ci ñu mu seetaan ñu sànq ñu ngi koy gërëm ci ay ngëneelam ak i ngekkam lu xam ne sotti na ko ci ñun jaam yi te walam yi nga xam ne dotti na ko cëmbartal na ko ci ñun ci lu nëbb amul feeñ ñu ngi seede ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom waruñu koy bokkaale kenn wala lenn di seede ne Muhammad jaamam la yonentam la moom yàlla moo ko yónni njub moo ko yónni diinaay dëgg ngir na feeñal loolu ci kaw mboolem doxalin yi wuuteeg loola doonte bokkaale kat yi loolu naqa dina rek mbokk yi yàlla dafa yónni yonentam ngir samp aw layam ci kaw jaam yi ngir matale ay xewalam xewalamu ci yàlla ko yàlla si yonent boobu def ko ci waa këram def ko ci àndandooram def ko ci mbooleem ña leen topp ci rafetal gannaaw loolu mbokk yi yàlla subhanahu wa taala mun ee yéen ñi gëm man takk baat bi bu baax ee yéen ñi gëm mu ne ah mu ne gëm leen yàlla ak yonentam gëm leen téere bi nga xam ne wàccee na ko ci yonentam gëm leen itam téere yéen wàcce woon te la ko jël kon mbokk yi am na geneen ngëm bu ñuy woo bu bokkul ak gi ñu wooxee ba pare ee yéen ñi gëm nee ne ah kon gëm nañu ba pare mu ne gëm leen kon am na ngëm gu gën a dëgër gu gën a xoor xóot gu gën a dëggu bu ñu yàlla yoo gëm leen yàlla ak yonentam gëm leen téere bi mu wàccee ci moom gëm leen la mu wàccee woon te ñu ko ji jaam yàlla yi nañu xam ne yàlla mi màgg ci tedd dafa ñuy fàttalil ay xewalam yi nga xam ne def na ko ci ñun ngëneelam yi mu sotti ci ñun ci yónni gi mu ñu yónnee yónnente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàttali ñu ko ngir ñu xam dayo boobu ni mu toll bu ñu xamee dayo ba ñu sant ko sant ga ca war ngir ñu taxkoo ci sunu dund lépp loolu nga xam ne moom la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi woon moo xam ci xam-xam la wala jëf la yàlla subhanahu wa taala mu ne yàlla dotti na xéwalam ci ña gëm ba mu yónnee ci ñoom yonent bu xam ne ca ñoom la bokk nit la ni ñoom ñu xam ko xam askanam xam dayoom xam dëggum yonent ba mu ñëw di leen jàngatal aaya yàlla yi di leen teelal di leen xamal alquran ak sunna doonte nag ñu sànku lañu woon lu jiitu yonent boobu di ñëw waaye bi mu ñëwee gindi na leen kon nañu fàttale ko xéwalu yàlla boobu bokk yi kon mooy xéwal bu rëy mooy ngëneel bu mag bi ci képp ku xam ne jëfandikoo nga sa xel seetan salaat bu baax yónni gi yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande la ko def pour mboolem mi def yàlla ne yonent bi yónni huma la lu dul ngir nga nekk yërmande ñaar mboolem mi def téere bi yàlla wàccee ci moom ak waaraate la ak xuppaate la bu jëm ci mboolem bi def yàlla subhanahu wa taala ne mag ak bëri barke ñeexal na yàlla mi nga xam ne moo wàccee alquran ci jaamam bi ngir mu nekk xubbaatekat waaraatekat ñeexal bi def yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni ngir mboolem mbindéef yàlla ne yónni huma la lu dul ngir mboolem mbindéef yi nga nekk ku leen di bégal te nga nangu di xabal ñi nga xam ne dañoo bañ waaye nag li ëpp ci nit ñi ñoom xamuñu loolu yàlla ne yonent bi waxal nit ñi ne leen man de yonentub yàlla la bu jëm ci yéen yépp ci yonent bi la yàlla nasaxalee mboolem sariya yi ko jiitu woon ci yonentam gi ko yàlla yónni la obligé jaam yépp nañu ko topp moom yonent bi te it nañu yëg ne yàlla àtte na ci ne képp ku génn sariya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ku perte la ci àdduna ak alaxira yàlla subhanahu wa taala mu ne képp ku sàkku lu dul lislaam bëgg koo diina woo duñ ko ko nangul te yawm alqiyaama mu ngay bokk ci ñu perte bi naka noonu yàlla subha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne génn naa ci ci bakkanu Muhammad nekk ci loxoom ne benn yahudi yi wala nasraani yi ci xeet wi dut ma dégg ba pare bañ a gëm li ñu ma yónni mu dee ci loolu lu dul ne mu ngi bokk ci waa safara lu ko def mooy ne ci moom la yàlla tëjee yonent bi yàlla ne muhammad du bàyyi kenn ci seen góor ñi waaye yonentub yàlla la te mooy ki tëj yonent bi itam mbokk yi àqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunu kaw dafa tënk ci ay mbir ba ca njëkk mooy ñu gëm ko àqu ba gën a màgg ci àqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu kaw mooy ñu gëm ko dëggal ak yonentam fas ci sunu xol ne Muhammad jaamu yàlla la yonentam la yàllaa ko yónni ci mbindeef yëpp bokk na ci ay àqam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy dégg ndigalam di ko topp bokk na ci ay àqam ñuy attewoo sunnaam bu mbir ñëwee itam ci sunu diggante ñu wuti ca atte te itam ñu gërëm la ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atte sunu xol dal ca sunuy dënn ubbeeku ca yàlla subhanahu wa taala nee na yonent bi génn naa ci sa borom ne jaam du ñu gëm lu dul ba ka ñu la atteloo ci lépp li ñuy wuute ci seen diggante te duñ ca fekk ñag diiralu xol te la nga xam ne attelo ko waaye dañ koy jébbalu jébbalu bu mat sëkk bu yonent bi diglee benn ndigal wala mu atte benn atte dañ koy nangu dañ koy d'accord amuñu àq de ca tànn dara yàlla subhanahu wa taala mu ne jaaduwul ci ku gëm yàlla ku góor wala ku gëm yàlla ku jigéen bu yàlla ak yonentam àttee menn mbir ñoom ñuy amati lu ñuy tànn ca mbir moom mbokk yi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sabab la ci dugg aljana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne sama xeet wi yëpp danañu dugg aljana ba mu def ci bañ ñu ne ko yonent bi ana kan mooy bañ a dugg aljana mu ne képp ku ma topp dana dugg aljana ki ma mooy moom moo bañ a dugg aljana bokk ji bokk na ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg gu dëggu ñu xam ne mbëggeel googa ma ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel bu dëgg mandarga la ci ngëm mandarga la ci ngëm kon dafay war ci jullit mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel bu ëpp gi mu bëgg bakkanam bi ci diggante ay wetam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dëgg lu ñu ba taw melee noonu Omar ibn Xataab radiallahu anhu dafa ne yow yonent bi gën naa ci yàlla ne mboolem nit ñi yaa ma leen gënal ba mu def sama bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah Omar déet ngëm gi du mag lu dul ba sama la gënalee sa bopp de nag Omar ne dëgg-dëgg yonent bi yëg naa ne sax léegi yaa ma gënal sama bopp yonent bi ne ko waaw kay léegi la soog a mat léegi la ngëm gi soog a mat kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu ngëm lu dëgg lu dul ba mu ñu gënalee suñu bopp yemut ci loolu waaye yonent bi xabaaree nañu it ne balaa gëm bu ñu ko gëm di dëgg ba tam ñu gënalee sunu waajur gënal ñu sunuy doom mu ne moom yonent bi kenn ci yéen du gëm lu dul ba sama ko gënalee doomam gënal ko waajuram gënal ko nit ñi ñëpp mbokk yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dëggoo noonu am na meññeent mu muy meññ meññeent ma muy jur ba ca njëkk mooy yombalal la topp yàlla subhanahu wa taala ñaareel ba mu war sagalal la yàlla bëgg la ñetteel ba mu war sagal la yàlla jéggal la sa bàkkaar bu dëggoo yonent bi yàlla subhanahu wa taala mën a yonent bi waxal nit ñi ne leen su fekkee ne bëgg ngeen yàlla na ngeen ma topp man yonent bi kon yàlla dana leen bëgg dana leen jéggal seeni bàkkaar kon ndeke jaam bi manul am mbëggeelug yàlla bu ko yàllay bëgg lu dul bata mu bëggee yonent bi yàlla bi mbëggeel gu dëggu gu xóot ci biir xolam bokk na ci meññeent yi jaam bi amee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbëgg gu dëggu yawmal qiyaama yaag moom la yàlla di boole dajale yawmal qiyaama yàlla dana lay yeggale ci moom anas day nekk li mu ne benn waay daf na yonent bi waaw yonent bi kañ la bis penc di ñëw kañ la adduna biy jeex bis penc taxaw yawmal qiyaama yonent bi ne ko ma yow loo ko waajalee lan nga préparé le bis penc mu ne ko xanaa bëgg yàlla ak yonentam bëgg yàlla ak yonentam ni laa ko waajale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nit ku nekk mu ngi ànd ak ka mu bëgg anas mu ne saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw seen kontaante gi ñu kontaan ci nekk jullit amuñ geneen kontaante bu gën a tar ci ñoom kàddu gii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki mu ngay nekk te mu bëgg ëllëg yawmal qiyaama ndax wóor na leen dëggu bëgg gi ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax anas mu teg ci mu ne man de bëgg naa yonent bi bëgg naa Abubakar bëgg naa Omar te maa ngay yaakaar yàlla yeggale ma ci ñoom ëllëg yawmal qiyaama mbokk yi ñu ñu leen bëgg mbokk yi nañu leen bëgg bëgg gu dëggu bëgg gu xam ne day jur ñu topp sunnaam ci lépp lu mën a doon mbokk yi lii bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag am na ay mandarga yu ñuy xamee ne kii ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ba mandarga yooyu boo ko fekkee ci sa bopp man ngaa yaakaar ne bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mandarga yooyu soo ko ñàkkee ci sa bopp góorgóorlu nga wuti ko xamaa ne sa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëggagul bëgg gu mag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du nekk kàddu yu nit kii wax di ko tëggoo di ko damoo déedéet wante dëggantaan ba day nekk ak réalité bu ñuy teg bët ci topp sunnaam jëfee li yonent bi indi la nga ca xamut nga koy laaj boole ko bëgg bëgg sunna yonent bi mu gënal la doxalinu keneen ku mën a doon di jéem foo mën a toll di appliquer sunna yonent bi ci sa dund ci say jaamu yàlla ci sa mboolem mbir lépp lu la jot ci sunna yonent bi nga dégg ko xam ko da ngay njëkkalaan ci jëfee ko boole ko kontaan ca kon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du nekk ëppal ci moom ba di ko akkale loo xam ne yàllaa ko jaboo déedéet waaye itam nag du firi gotti dara jaam tuutaal ko déedéet da nga koy jox la mu ñëw bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mandargaam mooy topp lépp lu mu indi attewoo sariyaam ci mbokk na ci la la gën a màgg wala ma ne mooy la gën a rëy ci lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi mooy jaamu yàlla moom dong wéetal ko bañ koy bokkaale mboolem xeeti jaamu yu fekk yàlla ni borom bi ne fi rek nga koy defal doo ko defal kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla dafa digal nem yonentam mu ne ko waxal nit ñi ne leen man de moomaluma leen benn njariñ bu ma leen mën a xëccal moomaluma leen genn lor bu ma leen mën a fegal te man kenn manut may làq ci yàlla su fekkee ne yàlla nar na maa duma te itam manumaa am ku dul yàlla koo xam ne mooy nekk sama cëslaay naka noonu yàlla subhanahu wa taala ne yonent bi waxal nit ñi ne leen moomaluma sama bopp njariñ moomaluma sama bopp lor lu dul la soog yàlla ci man su fekkoon ne xam naa kumpa kon danaa bari yiw te itam dara lu bon du ma jot moo tax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy te dekuloo nañu ñuy ëppal ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy su leen ëppal na ngeen xam ne xeet yi leen jiitu woon la leen alal mooy ëppal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu leen ma jay bu leen ma jay na nasaraan yi jayee woon doomi Mariama ja Isa déedéet man na ngeen xam ne jaamu yàlla laa yónentam laa kon da leen wax dong te yem ca jaamu yàlla bi yónentam yàlla bi yem leen ci loolu mbokk yi muy ñaari garaat yu rëy yu ñu war a xam jaam la kon duñu ko jaam waaye nag yónent la kon waruñu koy mooy jaamu la jaam la kon duñu ko jaamu de waaye nag ab yónent la kenn waru koy mooy waaye dañu koy déggal ndigal di ko topp sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonent sallallahu alayhi wa sallam li mu ñu teete war ñu ko li ko yàlla yónni mooy samp sariyaam yàlla ci kaw suuf woo nit ñi jëmale leen ci wéetal yàlla sellalal ko diina moom kenn jaamu boobu àqu yàlla dong la du àqu yonent du àqu kudul yonent dañ ko war a sellalal yàlla dong loolu moo tax yonent bi salaa sallam benn bi benn waaye dafay wax ak moom ne ko bu soobee yàlla soob la bu la soobee yàgg yàlla yonent bi ne ne ko yow da nga maa bëgg a def ngendeel yàlla da nga naan bu soobee yàlla dong ñun nag yi ñuy wax xam nañ nañu xam ne yooyu njumte mbokk yi mandarga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko waxee topp sunnaam jëfee sariyaam roy ko ci lu néew ak lu bari mooy dëggal li yàlla subhanahu wa taala wax ne wér na ni am ngeen roy waay bu rafet ci yonent bi yàlla bi ci képp kuy gëm yàlla gëm alaxira ci boole ko di fàttaliku yàlla lu baree bari kon bëgg ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy màggal sunnaam ki bëgg yonent bi mooy ki màggal sunnaam fonk sunnaam bu ma nee sunnaam mooy lépp la mu doon dundee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp la mu jàngale lépp la ñu def ci kanamam mu saxal ko ñu sopp ko bëgg ko di ko laaj di ko gëstu jox ko yitte jox ko poids bu ñu joxul leneen lu dul moom lii mooy dëggal bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñu mbir mii di diina ji képp ku ci soxla ci bopp yàlla daf la koy dellu bal mbir ma romb na foofu képp ku jëf jenn jëf juututee ak jaamu yàlla te suñ li nga nekkute yàlla daf ko koy delloo kon yàlla nañu yàlla war sagal dëgg dëgg bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war sagal ñu meññeen ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ci sunu xol mu gënal ñu sunu bakkan ak lépp lu dul moom aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim alhamdulillahi hamdan kathiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول الحق تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما yàlla subhanahu wa taala mbokk yi moom la ñuy sant moom la ñuy gërëm cant gu bëree bëri gu sell gu bëri barke kenn sa laayul na mu ko bëggee na mu ko gërëm di seede ne amul kenn ku ñuy jaamu si def ku dul moom wala ñu koy bokkale kenn wala lenn di seede ne Muhammad jaamam la yonentam la teewal amul ci yàlla na ko yàlla def ci yonent boobu def ko ci waa këram def ko ci àndandooram ak ku leen topp ci rafetalu bi tey gannaaw loolu mbokk yi yàlla tabaraka wa taala nee na képp ku topp yàlla ak yonentam ñooña ñu ngay ànd ak ña nga xam ne ñoom la yàlla defal xewal ca yonent ya ca ñu nëbbu ña suñu sahid ña ca yoonu yàlla ca ñu baax ña te ñooñu dee ku ñu de sa àndandoor yaa ka baax ay àndandoor yaa ka rafet ay àndandoor yàlla nañu yàlla boole ca ñoom loolu nag ngëneelu yàlla la te yàlla dooy na ci xam ña ko yeyoo ngir jëf ya ñuy jëf ba tax ñu yeyoo yàlla ñu bokk ca ñoom jaam yàlla nañu xam ne liy cosaan ci gépp jaam gu ñuy yëngatu bëgg ca ngërëmul yàlla subhanahu wa taala ba ca njëkk mooy na na nekk lu sell ngir yàlla dong ñaareel ba nañ ko defee nu dëppoo ak téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gépp jaam bu xam ne ñu ngi koy jaamoo yàlla te amul cosaan ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu xam ne googa jaamu neen la lu ko def ngir ñàkk gëm ñàkk dëppoog njàngaleem yonent bi ci yonent bi mooy ki nga xam ne njàngaleem dong ca lañ mën a jaamoo yàlla mu wér ànd loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboole nit ñi ñoo ko ci gënoon a jege moom yonent bi dañoo dundoon ànd ak moom xamoon ak njubam xamoon ak jaamu hinam kon gépp jaamu yàlla bu xam ne ñoom saxaaba yi defuñ ko woon ñun nañu xam ne loola du jaamu nañu xam ne loola du njub ndaxte jaamu àqu yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko saxaaba yi nekk nit ñu xam ne mboolem nit ñi ñoo ñoo ko ca gën a am ndax ñoo dundal yonent bi muy wax ñuy dégg muy jëf ñuy gis muy tere ñuy fekkee yàlla subhanahu wa taala seede saxaaba yooyu ak tànneer ña ñoo gën ci mbindeef fii gannaaw yonent yi yàlla ne wassaadiquuna al awwaluun min al muhaajirina wal ansaar walladina tabauhum bi ihsaan radiyallahu anhum wa radu anhum ñu njëkk ña jiitu ci lislaam daña gàddaayee woon màkk ñëw madina ak seen njaatige yañ fa fekk ñu dimbale leen ak ña leen topp ci rafetal ñooñe de yàlla gërëm na leen tey teral na leen ba ñoom suñu gërëm yàlla kon nag saxaaba yi ñooy suñu royukaay ci mu ñuy royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg mooy lan ñu andil mu bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ti toxaluñ gépp jaamu bu xam ne sahaaba yi toxalaluñ ñu ko mu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul cosaan te lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil sahaaba yi jaamoo wuñ ko yàlla nañu xam ne loola bidaa la loola amul dëri ci dina yàlla dëgg mooy la dëppam njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp bidaa bu xam ne dañ koo sos taxawal ko nañu xam ne yemut ci nekk jàngoro moom ci boppam waaye danañu jëlal waxtu gàllankoor ñu ci sunna suñ waroon a taxawee te taxawee wuñ seet ku kuy dundal bidaa wala boobu lu bari te ñooy dundal bidaa amaan na sax la cay seen jubluwaay mooy bëgg am ay yiw bëgg am ay siyaab waaye Abdullah ibn Mas'ud noonu bari na lool ku bëgg yiw ci dajewul ak yiw yëf yi du la nga bëgg waaye lam doon la mbir mi du la nga bëgg waaye mbir mi lam doon la wen jii ma teg sama loxo mboolem ñi ci jàkk ji suñ bëggoon mu nekk or seen bëgg-bëgg boobu du tax lañ ngi nekk or weñ weñ bu ñu lay doon kon mbokk yi yàlla la ñuy naan mu war ñu dëgg ba ñu gis ne lii mooy dëgg mu war sagal ñu ñu topp ko te sax ca mu war ñu caaxaan ba ñu gis ne lii muy caaxaan mu war sagal ñu sori ko ba ba ñu dajeeg yàlla te duñ ca dellu allahuma aslih lana dinana allati wa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha maasuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha maaduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khayr واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من حبه وينفعنا عندك وحب العمل الذي يقربنا اليه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وطاعة لكتابك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد واقم الصلاه